wasalaatu wasalaamu ala man arsalahu llahu rahmatan lil alamin basiran wa nasira wa daayan ilallahi bi isnihi sirajan munira sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñoo seetaan yi ñoo déglu ñu ngi dellu si waat ak ci suñu programme min barul islaam ci xaaj bi nga xam ne mu ngi aju ci néegu sëy dégg ngeen keroog waxtaan bi nga xam ne ne moom lañu waxtaanoon ñu dalaloon fi eh, cheikh alhaaji Mouhamad Hadi Silla déggoon ngeen fi mu dooree woon waxtaan ba ci néegu sëy ca moo doon tontu laaj bi nga xam ne moom lañ laajte woon ne léegi sëy yi nga xam ne moo xew ci jamono ñu gis ne sëy yu yomba génn la yu yomba jeex la yomb jeexal sëy yooyu nga xam ne moo xew ci jamono léegi lana ko waral xusoon nañ ci ba jox ci ay details yu baree baree baree bare yoo xam ne wane woon na li nga xam ne moo dugg ci sëy yi ba nga xam ne sëy yi fi mu nekk nii mënatuñoo mel comme ni nga xam ne ni la meloon ca bu njëkk ba bi ca gën a am solo mooy pour def ko ngir yàlla bu ci gën a am solo mooy léegi sëy dañ dee fàtte waaye paatu sëy ngir yàlla ne yàlla moo santaane sëy kii sëy sëy ngir yàlla kii denc itam def ne yàlla moo santaane pour ñu denc jabar bon yiñ ci war a def yépp yàlla moo ko ko santa su ko defee dafay tax sëy ba neex waaye su ko deful itam dafay tax sëy ba naqari waaye lana tax sëy bay neex mooy ne dafay am ngërmaande yàlla parce que dafa def santaane yàlla waye bu ko deful itam li tax ci bay nakari mooy ne dafa am meru yalla parce que yalla ko sante lim ko sante deful ko bon ci loolu lañ xuusoon be nga xamne tay nak dina ñew ci ne legi nak fi nek ni naka la ñoo mëna a ci sey yi nga xamne moy sey ci saan ya moy sey mag moy sey yu njëkk ya ni nga xamne ni yaay ya daan sey waye tam gu papa ya nga xamne ñoy mag ña naka lañ daan jabar te loolu dinañ ko xam ci dencu jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko yaag melokaan yaag yi nga xam ne moom la daan def yépp bu neexee yàlla boobu te dañ ciy xuus tey ci léegi naka la def bon sëriñ bi nga sëriñ Modou Adé mu dellu si na tey pour nag question bi nga xam ne moom la ñu war a laajte tey ba tey mooy ne naka la ñoo def nag ba sëy yi delluwaat ca cosaanam li nga xam ne moo taxoon ñu takk sëy li nga xam ne moo waral jëkkër ak jabar di dencante ak li nga xam ne moom lañ ci yaakaar bu neexee yàlla tey na ngeen ko déglu ci sëriñ Moodu Aadi Silla dina leen ko jafale bon nag sëriñ Moodu bisimilah faddal euh, waxtaanal ak mbooloo mi ci loolu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Seydi Mahamad Lamin kan ñu ngi lay nuyu di nuyu ñu ngi fi fekk ñu jàkkaarleet ak ñuy déglu ñëpp di leen siyaara di leen balaax di leen balaax di wax ne la ñu ñëpp ñoo déggandoor laaj boobu laaj nga lu am solo nag ci fànn gi nga xam ne mooy fàndu sëy ndax sëy dafa nekk lu alquran moo ñu waxoon ne fanke wa maa taaba lakum min nisaikum kon ndeke si boobaa takk jabar dafay nekk nag wareef ci xam ne bu takkut du mën a muñ eh, li nga wax ne sëy ya jàkke ya ca mag ña ak seen njaboot ga magi tey ak seen njaboot gi nañu def nag ba mën a delloo aat delloo doom yi yu góor yooyu jigéen ñi ci sëy yi nga xam ne moom la mag ñi daan def ci seen ak njaboot ci jamono ba xam ne ñu ngi leen jaboote sëy buñ bëggee delluwaat ci ne xam ne noonu la mag ñi dencante woon ba sëy yi melaat li toxoon ñu santaane woon sëy ba yaakaari meññat man cee am ñu ko tuddee doom ju baax wala mu barke eh, foog nag ñu royaat mag ña at ci ciosan jamono mo soppeku te jamono moy nit ñi eh, waxtu buñ ne wàññeeku leen ñi desoon gannaaw ñoy jitu buñ deme nak ba ñi waroon jitu des gannaaw ñi desoon gannaaw wara a legi ñoy jitu jiitu subaa nag yoon buñ bëggee nag sëy yooyu e barke kem ni sëy e yi mag ña barke woon sax na sëy e yi mag ña saxee woon sell na sëy yi mag ña sellee jub na sëy yi mag ña jubee kon dafa am luy jàkk muy jiitu bala sëy di am mooy lan mooy yar njaboot gi dañ yar njaboot gi alakulaalin ci góor ak jigéen ci kuñ jur ku nekk këla am na ci yow nga yar doom jooju ci ku góor ko xamal ko ne ko góor du mag góor mukk fekk sampul kër dana doon góor de ci bom mu juddoo rek la nekk di góor waa nag du mat góor mukk nag fekk sampul kër waa góor gu bëgg a samp kër nag naka laay def ba samp kër lañ koy njëkk jàngal bala samp kër di jot mooy na feexe ba dugal ca xolam ba ak xelam ma mu nekk koo xam ne ku rafet njort la ku mën a muñ nañ dugal ci xale boobule mu yaa dënd lool ba mën a muñ mooy lan mooy jàngal ko jéllale ak jéggale moom xale boobu ca moromam ya ca foandooram ya ca waxin wa ngaa wax ak moom ca jëf ja ngaa jëf ci kanamam ci yeen magi neen ya sa diggante ak ci yaayam fexé ba boora wax ak yaayam bu wax ñaaw fexé ba boora def ak yaayam bu jëf ñaaw lepp lu ngeen bañ bu magge yor ko bu leen ko def ci kanamam yéen way jur ñu xamal ko ne ko nak noppul mo warul am ci gor ne na nga liggey bo na nga liggey bok nga xamé ne ku ku nekk la nga am yaak ngi say bok yeen koy bok boole mbok mooy fexe ba mu xam li mbokk yow xam li war sa diggante ak moom ci jëflante ci xàqi nit ak mbokkam xamal ko li war diggante ku góor ak ku jigéen ñu ko tuddee càmmeñ ak ab jigéenam la war si diggante boo amee yow góor mbokk mu jigéen la war si diggante moom mooy lan xamal ko ne ko góor dafa di war a muñal ab jigéenam waaye daf ko war di yërëm waaye daf ko war di jëriñ waaye daf ko war di jàppale daf ko war di jàjjit nag mu bañ a jàdd ëllëg bu ko defee ba loolu dugg ci xolu ko góor ki loolu kañ lay feeñ bu dee bañ dénk ko koo xam ne jabar laay do ci moom su ko defee nag mu ko miinoon ci ba mu de jigéen ak jigéenam mu sàmmoon la waroon digganteem ak moom seet la taaru yépp mu di ko joxe digganteem ak jigéenam boobule la ñaaw yépp mu nëbb ko digganteem ak jigéenam boobule dàq lépp loo xam ne dafay jur ëllëg ak yàq wala njubadi wala ak jagadi wala ak tasaare wala ak tàqoo mu fexe ba loola Gor gi baña am sens bo xam dana dugg ci xolam ci jamono bobu la kep koo xam nak nek nekk nga góor maneeg say jigen bo ëllëgee ko la dënk jabarit da nga mane ak mom yow ko jigen ki ñu xamalé ne jigen niko téré waxé rek càngaay la ñeexal góor ñi waaye defe na ampul kenn ci né càngaay bu la joxul ñak du la fajal liw kon ndeke càngaay dafa war jot waaye càngaay dafa war a mat càngaay dafa war a suturlu dafa war a fat dafa war a jot dafa war a sax ndekete su boobaa la taxoon nag ñu sadd lépp ci jigéen mel la ko comme càngaay ndeke boobu jikko la war a am digganteem ëllëg ak góor ga nga ne moo koy denc kañ am nag ba mu nekk ci nijaayam jabar defe naa ne kenn ku ne dégg na ne jabar dañ koy denc lu ñuy denc nag ndax dana nekk foo xam ne ku di ko gis ko déedéet kon ñu fexe ba xale yu jigéen yu gàtt tànk gàtt làmme suturaal seeni jëmm nooy kàddu